fi nga xamante ne fi la laayeen gi doore lépp a ngi si biir leer gi fii si xunt mi kon kebe dag may topp bu ko defee ñu daal di àndandoo xuus xool li nga xam ne moom moo xew fii nga xam ne moom mooy fii si xunt mi nga xamante ne nee ñu leer gi fi la nekkoon ay junniy at bu ko defee ñu expliqué ñu ñi nga xam ne dañuy seetaan sa TV di seetaan seen émission bii di pencum ëttu diine yi ñu fas yéene ànd ak ñoom si biir koor gi nii lañ koy doxalee ba koor gi jeex incha allah kebe ñu xuus daal dem voilà mbokki téléspectateurs yi ñu ngi nii si xunt bi yegg si nañu ñu fas yéene ànd ak ki nga xamante ne moom la ñu fas yéene àndal si émission bi Laye Makhtar bu ko defee moom dinañu wanaleeg xunt mi dinañu wax itam li nga xam ne moom moo am si xunt mi waaye li nga xamante ne ay kéemaan la tamit nekk si xunt bi fi nga xamante ne fii la leer gi doore ñu fas yéene ànd ak moom mu wax ñu kan mooy Seydina Limam mu wax ñu lan la woote wax ñu itam li nga xamante ne moom la fi bàyyi balaa muy dem sang bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax lay Makhtar bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina imaamallahi almahdiyu salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawm alqiyamati mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital sunu nuyoo ak sunu ziyaara ci xalifatul muslimin Seydina Mouhamadou Muxtaar Lahi ibnu Seydina Mandione Lahi ibnu Seydina Imaam Lahi alayhi salaatu wassalaam di ko ñaan yàlla defal ko wér ak tawféex bu bare bare bare di bokk di ko ndokkeel di ànd àndandoog julit ñëpp te di ko ndokkeel ci weeru koor wu tedd wi di jaare ci moom ziyaara it sunu kilifay diine yëpp yal yàlla sàmmal nu leen te bàyyil nu leen ci kanamu Sénégal gi di ñaan sunu borom yàlla def jàmm ci jullit ñi nga xam ni weer wu tedd wi ñoom la ko yàlla jox def ko mu nekk seen kado yàlla na kado boobu yàlla nañu ko bénéficier wu ci kantinam ak dooleem lépp luñ tey ñaan ci weer wi yàlla nañu daje ak moom ñu ngi lay ziyaara bu baax soxna Ndey di ziyaara mboolem équipe 7TV bi yëpp di ñaan yàlla defal nu jàmm ak tawféex incha allahu taal ñu ngi bu baax a baax lay maxtaax tey nag ñu ñëw fii nga xam ne mooy xunt bi tey ñu fas yéene waxtaanee Seydina Limaamu Almahdi. Eh, tabaarkàlla ndey maa ngi ñu ngi bëgg a waxtaanee koo xamante ne ku màgg la ci yàlla. bëgg waxtaane koo xam ni moom la àddina gi yëpp doon xaar bëgg waxtaane koo xamante ni mooy man mi nga xam ni moom la yàlla di feeñal ci axiru zamaan ñëpp di ko xaar muy al imaamullahi al mahdi alayhi salaatu wasalaamu mi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko moo ko signalé woon daal di wax moom yonent yàlla muhammad ni maa ngi leen di bégale ci al imaamil mahdi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw ubashirukum bil mahdi yi yubaasu fi ummati ala ixtilaafin bayna annaas wa zalaazil maa ngi leen di bëggale limaamul mahdul muntazar mu tedd moomu nga xamante ni jullit ñëpp moom la ñu doon xaar ak yonent yàlla Isa mi nga xamante ni moom mooy accompagner imaamul mahdi nga xam ne yonent bi waxoon na ni la mahdiyan kaamilan mahsuman illa Isa ibnu Maryam mahdi yu mission bi du mat mukk lu dul ne Isa ibnu Maryam moo koy gunge ci mission boobu kooku nag nga xamante ni moom la jullit ñëpp doon xaar muy mahdi yu alayhi salaatu wassalaam mi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane mbiram tey jii macha allahu taala yàlla def ko mu nekk teraanga bu rëy teraanga bu màgg dëkk yëpp doon ko xaar yàlla wërsëgale ko dëkk bu tedd bi nga xamante ni mooy Sénégal depuis 1843 mu gane àddina ci dëkk bi moom sang bu tedd bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaamu moom mooy ki nga xamante ni moo taxawoon en 1883 waxoon ne ajibu daa iyallahi yaa maxshar al insi wal jinni inni rasulullahi aleykum kaay leen wuyu woote bi yàlla bi mboolem nit ak jinne man la yàlla yónni ci yéen yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam tey ñu ngi taxaw ci ay trasam pour bëgg a waxtaane sang boobu sidna limaamu alayhi salaatu wasalaam pour xam ko nag damay faral di wax ni eh, amul benn bor borom xam-xam yi ñoo ko gën a xam ndax seen si seen téere yi ngay fekk ñuy jàngale chaque jour mbiru limaamul mahdi alayhi salaatu wasalaam euh, boo jàngee ku mel ni imaam euh, imaam ibnu xaldum wax na ni tabaraani wax na ci ci musique borom xam-xam yu mag yi nga xamante ni ñoom mooy ngëm lislaam bi yëpp koo ci dem ci téeréem rek moom mu ngi jàpp di di di fàttali jullit ñi dikkuk sang bu tedd boobu nga xamante ni moom la ñëpp doon xaar di al imaamullah alayhi salaatu wasalaam moom sang boobu nag tabaarakallaahu dafa yonent bi nga xamante ni moom la yàlla dogal mu juddoo ca màkkatal mukarrama di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gàddaay ñëw madinatul munawwara nga xamante ni moo doon def bicharaat yooyu nga xamante ni mooy bégal te ab yonent du bégal kudul ab yonent maanaam du bégle jëme ci kudul ab yonent yonent du bégle ci président du bégle ci sëriñ du bégle ci walliyu du bégle ci xutbu bichara bu ko yonent di def rek dañuy gis ni ulama u d d'accord nañ ni du ko defal kudul ab yonent yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni mission bi mu ngi jeex moo ne woon saxaaba yu tedd yi maa ngi leen di bégalee ci limaamul mahdi yu alayhi salaatu wasalaam limaamul mahdi yu moomu nag yubasu fi ummati ku yàlla di yónnee la ci sama xeet méthode euh, période yi mu koy yónnee al ixtilaafin bayna naas dina fekk nit ñi nekk ci ay divergence yu bari ay wuute wa zalazil dina fekk àddina yëngatu su ñëwee nag moom limaamul mahdi yamlawul arda xistan wa adlan kama muli at jawran wa zulma balaa feeñ dina fekk suuf si fees dell ak beew ak njàngate mu ñëw indi fi nag euh, ak maandu ak ragal yàlla moom sax bi seen alimaamu alayhi salaatu wasalaam place bi ñu nekk yonent bi dafa waxoon démb ni mu ne madinatul munawwara ni ana akramu ala rabbi min an yatrukani fil qabri aksara min yawmayni yàlla defal na ma teraanga ba bu ma faatoo ñu denc ma ci suufi madinatul a du ma def ci suufi diina lu ëpp ñetti fan moom sang bi seydina limaam alayhi salaatu wasalaam moo ni woon mag ni muhammadu naa ma wastayqaza muhammadu mamadu mi nga xamante ni moo doon nelaw ca madinatul munawwara kooku la yàlla yeewaat andi ko ci dëkk bii nga xamante ni mooy Sénégal boo demee ci téere bu ñuy wax wasailul mutaqabbil ñu bari di ko fire ci ay wàllu way la ñu koy tuddee ibnul muxayyab dafa waxoon ni wa id xasada al oxra fa sawaba naxwaha xata xatwatan lam yablux ilmul xalaihi shaawaha yeneen bi bi mu bi mu bi mu bi mu làqoo dem àjjana jógaat na beneen jéego boo xamante ni kenn xamul fu mu teg tànkam maanaam jéego bi nag du màkk du medina dëkkmal na foo xamante ni kenn xamul fu mu teg tànkam moom sang bi seydina limaam alayhi salaatu wasalaam mi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane moo ni bi ma yàlla jëlee ma dinatul madinatul munawwara indi na ma ci xunt mii di ngor xunt ngor mii makastu fi musalla ngor aksaru min alfu sanna baati araab yi moom sang bi moo daan wax ay waxi olof ndax moom jàngul woon saaba yi doon ko bind doon ko yaxal ci téere yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñoom ñoom ñoom ñooy téere yi kër gi sëñ Maxtaar Lo nee na waxtaane ñoo ak moom sang bi Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam mu ne bi yàlla jëlee leeram madinatul munawwara daf ko indi ci xuntu ngor mi def na ci biir xuntu ngor mi lu ëpp junni at ak lu teg waaw junni at mooy lu ëpp mille et quelques années yoo xamante ni yàlla jël na ruuxam def ko ci biir xunt mi loolu nag ñu jàng te xam boo jàngee lu mel ne xilaasu sax maam si Hadj Malick nee na yonent bi bi ko yàlla bind yàgg naa làq leeram ci ay bërëb làq na ko ci ay xijaab lu àgg fukki xijaab ak ñaar jële ko fa làq ko ci ab ab xuraat muy ay géej fukki géej yàlla làq fa leeram waaye bi mu nammee feeñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na leeram saxal ko ci xuntu ngor mi lu ëpp junni at sang bi seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni yàlla jël na sama leer gi def ko nee na bi yàlla nammee nag sama dellusi ci kaw suuf pour indi ma fa mu ne yàlla dafa daal àddina boo demee ci téere bu salmahibin bu maam maxtaarloo dafa wax ni lama arada allah bityaani fi dunia mu ne at war dunia xata ma kaana fi lmashriqi kaana fi lmahribi waaye wa dalika yusamma ahlu dunia xarakat al ard walam yaarifu sawa zalika sang bi neewoon na leen bi yàlla nammee samak feeñ man seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam yàlla dafa wëndaal àddina lépp lu nekkoon ci penku bi ci àddina ci lu baax ak lépp yàlla jël ko yóbbul ko waa sawu bi lépp lu nekkoon ci sawu bi yàlla jël ko yóbbul ko waa waa waa penku bi boo demee ci abi hurayrata nettali na lu mel noonu waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam yonent bi waxoon na leen ne inna allaha ida araada an yatlu shamsa min maghribiha adaaraha bil qutbi fa jaala mashriqaha maghribaha wa maghribaha mashriqaha bu yàlla nammee fenkal jantu jant yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko nammee fenkal ci sawu bi yàlla dafay adaaraha bil qutbi day wëndaal xolub àddina su ko wëndaalee nag fa jaala mashriqaha mahribaha mu jël lépp lu nekkoon ci penku bi yóbbu ko ci sawu bi lépp lu newoon ci sawu bi mu yóbbu ko fa nga dégg moom sang bi seydina limaamu alayhi salaatu wasalaam fekk fi mag ñooñu muy ay abi Hurayra te yi nettali xadis bi wax ci 1800 et quelque ni bi yàlla nammee sama feeñ dafa wëndaal àddina jël lépp lu baaxoon te ci penku bi mu yóbbul ko waa sawu bi lépp lu baaxoon tamit ci saw bi mu yóbbu ko ci penku bi waaye nag nee na booba jamono waa jamono dañu tudde woon loolu tremblement de terre te nee na boobu wala lu yaxrifu sawba zalika xamuñu woon ni du tremblement de terre fekk ñaari suuf yooyu la yàlla doon la yàlla doon def échange jël suufi màkk ak suufi sawu bi loolu sax na ci biir axaadis yi nga xamante ni borom xam-xam yi dinañ koy jàngale ci affaire limaal mahdi mu ne bi yàlla jëlee leer googu nag teg ko ci xunt mi def na ci xunt mi lu ëpp junni at moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam nee na kullu laylatin yaduru dunya bis bu nekk mu ngi wër àddina bi nekk leer di wër àddina bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kunta nuuran bayna yaddi rabbi bi alfa bi arbaati alaafin nekkoon naa leer ci sama loxo borom lu ëpp ñeenti téeméeri junni at waaw loolu yëpp nag li ko waraloon mooy feeñal sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dellu si gi nga xamante ni moom la ñëpp doon xaar yàlla jël leeram gu tedd googu bàyyi ko ci xuntu ngor mi nee na guddi gu ne nag maa ngi wër àddina di xool ban dëkk laa war wàcc ban askan laa war a wàcc wàcc ba yàlla dogal mu wàcc ci réew mii di senegal wàcc ci askan woo xam ne moom la ñuy wax askanu lébu askan woowu nag dañu am ba tey beneen kéemaan gu nekk ci ñoom aspect bi mooy Yonent bi bi muy feeñ mu ngi feeñ ci giiru arab waaye arab dañu bëri woon ay ay ay xeet seeni xeet bokk na ci fukki xeet ak ñaar xeet yooyu moom yàlla feeñal ko ci biir xeet woowu nga xam ne moom la wax xuraysin moo taxoon maam Seydi Hadj ak ñeneen ñuy bind ñu mel ni moom doon wax ni fal urbu xayra unaasin summa xayrahumu xuraysahum wa huwa fihim xayru xayrihimi arab yi ay ay giir lañu waaye giir ga yàlla gënal gënal ci arab yi mooy giiru xuraysin ndax ci la feeñale gën ji mindeef boobu nag nga xam ne moom la ñëpp doon xaar di ko xaar ci xeet wu ne arab yi di ko xaar nit ñu ñuul ñi di ko xaar ñëpp di ko xaar ba yàlla ñëw yàttal ko nit ñi ñuul ñi rawatina dëkk bii di senegal moom yàlla feeñal ko ci xeet wu noo wax xeetu lébu soo xoolee xeetu lébu ba tey da ngay fekk ni euh, fukki giir lañu ak ñaar waaw troupe euh, giir yooyu boo demee banu Israël moom nga fa doon fekk ci waa kër yonent yàlla Isa ñoom fukki giir ak ñaar yonent bi ci biir fukki giir yooyu ak ñaar la feeñ nee guddi gu ne may xeet ci ban ban xeet laa war a wàcc ba yàlla feeñal ko ci xeetuk lébu lébu seen i xeet fukki giir lañu ak ñaar boo demee ci ñoom dañ ci fekk euh, jaasiraatoor dañ ci fekk waneer dañ ci fekk xonq bopp dañ ci fekk yukaam doroobe ba ñu mat fukki giir ak ñaar yooyu moom nag sang bi seen alimaamu yàlla feeñal ko ci giir goo xamante ni moom lañuy ñuy wax giiru euh, xaagaan moom sallallahu alayhi wa sallam bi mu defee fii lu àgg lu àgg lu àgg euh, junni at ak lu teg nee na di xool ci ban soxna laay laa war a gënee àddina te yàlla boole kook soxna maam ko mën doy mu baax moomu sell moomu nga xamante ni mooy waajuram mu jigéen yàlla feeñal ko nag jëli ko ci leer gi fii feeñal ko ci soxna soosu ci dëkk bu nuy wax yoof mu juddoo fa yaroo fa màgge fa ba 1883 mu taxaw ne aji bu daa iyallaahi yaa maasar al insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum kaay leen wuy woote bi yàlla bi mboolem nit ñi ak jinne yi man Seydina Limaamu may yonent bi yàlla bi yàlla yónni ci yéen waaw ñëpp nag mboolem nit ak jinne bàyyiwul kenn moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam woote nag moo doon dem di màgg di màgg di màgg di màgg ba tey ñun ñu mën cee jot nga xam ne c'était en 1883 yàlla yónni sang bu tedd boobu Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mu waxoon mag ñi ni leen bi ko bi mu ne man la yàlla yónni ni wax jii ma wax ni man la yàlla yónni du wax joo xam ne dafa toog ci biir néegi rek di ko wax wala mu toog ci euh, tele rek di ko wax mais dafa doon dem ci marché yi dem ci dëj yi dem ci ngénte yi dem ci grand place yi fu nit ñi toog di fa saxal ni man la yàlla yónni ba taxoon énervement boobu àggoon ba dal ci loxoy tubaab yi ak la fa xew yëpp ci lu gàtt rek. wax googu mu ne man la yàlla yónni biñ ko nee nag ñu bari ni nag sang bi dof na nga xamante ni tey yonente yi ko ma a yëkki yëpp kàddu googu moom lañ leen di askanale mooy kii dafa taxali ko ak sa goom keroog ba mu waxee dafa ne wax ji ma wax ni man la yàlla yónni ku ko fi wax maanaam ku am sañ-sañu taxaw àddina gépp taxaw nga yuuxu ni yow la yàlla yónni kaay leen wuyu woote bi yàlla bi dem ci nit ñi di wax ko bis ni ki tey jii ku ko fi wax te yàlla yónniwu la appal naa la at mi ma ko wax balaa at mee dellusee yàlla dina la fi faat wala suuf lekk la dériix noonu la ko doon waxee mag ñi bi mu waxee ni man la yàlla yónni loolu lay incarné moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam indiwaat lu bare bare bare bare ti jàngale yoo xamante ni ku ko xool di nga xam ne kii ab yonent la mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon waaw Abdoulaye Sylla nee na bokk na ca lañ ko toppee woon ba mu ne moom la yàlla yónni wa tamma wasfu zamanin kaana fi suxufil ula wa fi suxufin qad jaa li zazati kooku kenn la woon ti ñi àndoon ak moom moo waxoon ni ñoom bi ñuy ñëwee dégg woote bi ni kii de nee na moom la yàlla yónni ñoom dañu ñëw jël seeni téere comme basé wu ni ko ni ko ni muy amee senegal nga xam ne loo wax rek ñu la ci ban téere la amee ñoom ñu ñëw indi seeni téere pour demande sànq bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di ko xool di ko xool ci la ñu jàng di ko xool ci li ñuy jëf di ko xool ci tout ba gis sang bi ba xam ne kii ak li téere yi doon jàngale dara amu ci wax na ci seeni wax ne su ngeen gisee ci man Seydina Limaamu wax wala jëf di uuteeg waxi sama waxi démb ak sama jëfi démb bàyyi leen ma ta xam ne duma maadiyu demaat na ba waxaat ci beneen wax ne fa in jaa maadiyan xayri bu ngeen demee ba gis beneen maadiyu bu taxaw ni man la yàlla yónni ñëw leen ngeen am courage ñu man ak yeen ñu ànd dem ba fa moom bu ñu demee ba ngeen ubbi xool ni kii li muy jàngale moo gën a pertinent man li ma leen di wax te mu jóge ci yàlla wala boog li muy jëf moo gën a pertinent man li may def te mu jóge ci yàlla ngeen ñëw man ak yéen ñu ànd dem jébbalu ci kooku kon ndax ma kooku moom défi yi muy lancé moom wóolu na boppam xam nag moom mooy kan moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam wooteem bi yooyu yëpp nag ci loolu la ko tegoon mu di woo doomu aadama yi ci wooteeb yàlla bu sell bu yiw macha allah. macha allah imaam eh, ni mu ko waxtaanee am na solo ah, tabaarkalla macha allah lay maxtaar say libaas waxtaan wi am na solo léegi comme ñu ngi si xunt bi nag dañuy profité waale eh, comme fii la lépp doore woon ñu ànd nga wan ñu ay béréb yu kéemaane yoo xamante ne parce que maa ngi fay seen fee benn xeer boo xam ne am na histoire bëgg nañu ko xam bu ñu paree tam bëgg nañu dugg si xunt bi xool fi nga xam xamante fa la nekkoon lu mat nii at. Mhm. waaw macha allah kon nag bismillah. fi ñu njëkk taxaw nii mooy. waaw fii seen alimaam alayhi salaatu wasalaam maa ngi lay wax sànq ni la yàlla dafa dogal lii benn xeer la xeer buy wane ni moom sang bi seen alimaam alayhi salaatu wasalaam fu mu mës a teg tànkam bu la ko tegee ci suuf du marqué waaye bu ko tegee ci xeer rek mu marke te loolu jàngoon nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maam Seydi Hadji Malick nee na taslimul asjaari wal ahjaaru shaahidahu maanaam moom fu mu mës a teg tànkam sallallahu alayhi wasallam bu ko tegee ci xeer day marqué bu ko tegee ci suuf tu marqué lii ngay gis nii tànk la boo xamante ni mandarga mu fi yàgg la moo xamante ni fu mu ko mës a teg rek boo xoolee moo nekk ni bu tegee tànkam ci xeer moom Seydina Limaamu da ngay gis bu tegee rek trace bi daf fay des su ko daan def eh, tànk bi moo nekk ni su ko masaan teg tànkam ci ngay gis ne tànk boobu euh, du day marqué ci xeer bi mais bu ko dindee ci xeer bi rek dangay gis ni su ko tegee ci suuf tànk bi du marqué te giirug dundam mag ñëpp gisoon nañ ci moom Seydina Ali alayhi salaatu wasalaam ni daawul sol dàll waaw moom kenn daaw gis mu sol dàll mag ñi nee nañu bu daan ànd ak yow bu dee ndég am na bu tegee tànkam da ngay gis ndég bi teggaku bàyyi ko mu jàll moom sallallahu alayhi wa sallam lii nag mandarga la ci loolu nga xamante ni moom laa lay wax waaye moom sang bi Seydina Limaamu giirub dundam mag ñi ko xamoon ñëpp ñaari yoon rek la daan gis ci moom mu utiliser ay dàll pour di ko sol te mooy tabaski ak korité ñu gis muy sol ay dàll à part tabaski ak korité moom sang bi Seydina Limaamu daawul sol dàll tànku neen rek la daan def te loolu tamit mandarga mu mu mu mu kawe la moo xamante ni ñun mënoo ko mënuma ko keneen mënu ko ndax ñun jaar bu ñu sañsee sax dina jël daal lay jar cinquante mille cent mille bëgg ko sol pour gën a rafetal loolu. waaye ginnaaw sunu borom defaloon na ko teraanga ba bu dëggee tànkam ci suuf du marqué waaye bu ko dëggee ci xeer rek nga gis tànk bi des trace boobu trace boobu nag. sëriñ bi sax euh, Seydina Baye Abdoulahi mu Seydina Maam Alassane sang bu tedd bi suñu wayjur boobu moo ko liggéeyaat nii d'une manière boo xamante ni ku ne ku ne mën koo jariñoo waaye ci suuf si nga ko doon fekk lu ëpp ay téeméeri at lu teg macha allahu taala euh, tànk boobu nag moo nekk noonu moom naa Seydina Limaamu ma wax la sànqat yi boo demee ci biir xilaasu zahab bu maam Seex Seydil Haaji Malik radiallahu taala anhu ndax boo gisee ñuy jël sunu maam yu baax yooyu euh, ñooñu yàlla dafa def Sénégal teraanga boo xamante ni li fi nekk nekkul fenn tey lu ñuy wër ci yonent bi rek bu ñu demee ci ñoom dinañ ci fekk lu ñu am lu ñu doy sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk macha allah moo waxoon moom maam Seydi maam Cheikh Seydi Hadj Malick ne yonent bi gis nañ ci moom taslimul yi mu ne wal ahjaaru shaahidahu garab gu mu mës a nuyu rek daana jébbalu ci moom di wane cofeelam ak ngëmam ci sang bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag niki noonu itam doj yi muy xeer yeeg yu mel noonu yu dëgër yi. daa nañu seede ni kii ab yonente la te seede ba mooy bu tegee bu masaan teg tànkam ci doj yi rek bu ci teggee da ngay gis rek ci saase doj boobu def trace wane ni sang bu tedd bi teg na ci man tànk mais bu fekkee ni suuf si nga xam ne moo gën a woyof te ñun tey ji ku nekk yaa ngi dox ci suuf si te boo gisee boo ëlbatikoo gis sa trace et tout moom sang bi bu mosaan teg tànkam ci suuf rek bu ko ëlbatikoo doo gis benn trace su tànk bu lay wane ni fii doomu aadama teg na fi tànkam loolu nag dafay wane la mu waxoon ni mën a démb mën a tey waaw loolu lii lenn la ci biir firnde yooyu macha allah mu ngi noonu am na solo xeer baa ngi nii place boo xam ne lu jëkk Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam di feeñ waa sawu jant bi yëpp dañ daal ñëw di ziyaara place bi ndax ñoom dañu waxoon ni place bi ci borom ahlul kashf yi dañu waxoon ni maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam daana ñëw ci place bi ñoom ñi xam ne ñoo jiitu woon Seydina Limaamu ñoo daan wax loolu. ëlbatiku ni yent yàlla xadir daana ñëw ci place bii waaw moom nga def waaw place bëri ngëneel la place la boo xamante ni mag ñi daan nañu fi jaar amoon na ñetti porte yoo xamante ni boo ci topp dana dem ba màkkatal mu karama ni daan nañ fi jaar pour dem pour seeni aji te boobu fekkul sang bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Limaamu gane àddina mu nekk place boo xamante ni bam maxtaarloo nee na kaana yazuruhu ahlul mahri bi fii zamanil qadimi waa sawu jant daanañ ko siyaara ca fu ne di jóge fu ne di ñëw di siyaara bërëb bi nee na keroog bi nga xamee ne Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam woote na te ñoom boobu dañ ko doon askale ni yontu yàlla Ibrahima daana fi ñëw di askale ni yàlla Xadir daana fi ñëw Xadir ne nañ yonent ne du yonent waaye loolu yàlla moo ko xam ñii boroom xam-xam yi nee nañu jëmm ju baax la woon rek waaye daal kéemaanu yàlla daje woon na ci moom. nee nañu daana ñëw ci place bi doon fi siyaara ñoom nag loolu lañ doon dabu ñoom ci ñi borom borom borom cër yooyu waaye nee na ba nga xamee ne sidna limaam alayhi salaatu wasalaam sidna limaam mu baax mi feeñ na euh, ni sax na xuntam leer gi sax na ci xunt bi junniy at mu ne nag ñu ngi commencé nag gis nag ni ñoom ñu ngi commencé di di bàyyi tuuti place bi ndax moom sallallahu alayhi wasallam du jëkk muy feeñ sidna limaam mu baax mi la la toog ci saw ci ci ngapparu gi ci mbaari ngapparu yoof yi am koo xamante ni jëloon na ay ay bagaasam pour jaar fi ni dafay dem màkkatal mu karama moom sang bi mu këdd tànk bi mu def genre dënnu góor googu daal di dem biñ ko laajee lu tax jotoo dem mu ne foofu daal dënd bi bari na lool te wóoluwuma yoon wi ma ne naa woññeeku sang bi ne bés ni ki tey kenn dootul jaar ci place boobu di di dem waaye lu jëkk muy feeñ ñëpp daan lu ñëw ci place bi di ko ziyaare mu nekk place boo xamante ni waxuma sax euh, fi mu ne mais ni mu nekk rek kéemaan la ci biir kéemaanu yàlla yi nga jàkkaarlook moom wan leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii la yàlla dencoon leeram ñëpp di ko siyaara nga xool tey ak nii mu demee ak géej gi géej gi di lekk géej gi lekk na lu bëri ci place bi sax waaw tey lii ci des ñëpp di ko barkeeloo moom sang bi Seydina Limaamu fii la jaaroon ci mooy dëkk bi wax euh, Ngor ñu gën ko siiwee ci xunt mi Koumpentoum bi nag moom la ñëpp gën a xam waaw fii fii la mbir yëpp déparé macha allahu taala. ay ci ko ñu daal di xuus dugg ci biir xunt mi nag waaw. allahumma salli ala muhammad سيدنا محمد محمد سيد العرب فلا طيب إلا وهو طيب محمد صلى الله عليه fa mu daan wéetale boromam ñu di ko wax gaaru xiraa xunt la woon woo xamante ni daana fa dem di wéet te wax ñëpp xam nañ ni lu mel nii place la boo xam ne lu ñu yaakaari ñaan la macha allahu taala ndax fii nga nekk yaa ngi ci biir ndakaaru gis ne ndakaaru ni mu ni nga jàppe ni noonu la rëbee am na ci ay bërëb yoo xamante ni nit mën na faa toog di fa xaar boroomam di ko fa jaamu ba yàlla fekk ko fa moom saga bi Seydina Limaamu nag alayhi salaatu wasalaam fii la yàlla jëloon leeram denc ko fi lu ëpp junni at ak yu teg yooyu place bii la doon jóge moom sang bi di wër àddina bi di xool ci fan lay feeñe comme tey yàlla dogal na ñu dugg ba ci biir place bi nga xamante ni li fi ne ci ay kéemaan ak i ngëneel kenn xamul nu mu toll mag ñu baax ñi daan ñëw di ko ziyaara di wax ni xodar ñëw na fi ak ku nekk tey ku nekk di jóge fu nekk di ñëw di ziyaara place bi pour sàkku ci ngëneel yi nga xamante ni sunu borom moom moo ko fi def te yàlla nag li mu gën a soxla ci ab jullit mooy jullit bu koy ñaan rawatina weeru koor gi nga xamante ni da daana wax ni saw sawmu euh, lii wa ana ajzi bihi koor maa ko moom maa koy fay rawatina bu ñuy sàkku ci yàlla daw di ñëw ci place yu mel yi nga xamante ni ñëpp xam na ni leeru yàlla tàbbi woon na fi te boo amee tuuti yëg-yëg ci yàlla rek boo nee cëpp di nga xam ni fii daal kéemaanu yàlla mu ngi fi macha allahu taala tey fii mooy xunt mi nga xamante ni moom la ñuy wax li fi ne ci ay ngëneel bari na lool waaye xat-xat yi moo tax tey mënuñoo àgg ci yëpp pour mën ko àggali waaye xam naa ne ku fi ñëw solo sa dàll ba agsi fi di nga xam ne fii kéemaanu sunu borom subhanahu wa taala moo fi nekk yàlla na yàlla nangul nu mboolem liñ fiy def waaye ñu fàttali rek ne kooku ñëpp doon xaar di yonent bi yàlla bi seydinaa limaamu sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni moom la yàlla defal teraanga der bu ñuul bi ëlbatiku defal ko teraanga jullit ñi yàlla feeñale ko ci dëkk bu tedd bii di Sénégal ci dëkk bu tedd bii di Ndakaaru mbiram yëpp déparé woon ci dëkk bii di Ngor nga xam ne tubaab bi ko tuddee almahdi sax xamul woon Seydina Limaamu tuddee ko almadi moom almadi la ko tuddee te xamul ne woon leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii la nekkoon leer googu ñëpp tey boo nee du dëgg sax gis nga ni leer gi wan na li ne fi ma nekkoon a gën a seer ci àddina almadi gii ñu nekk tey moo gën a seer ci suufi àddina yëpp. li ko waral mooy leeru sang bi Seydina Limaamu tey bu ñu demee ba kër di fi jar milliard ab terrain vide boo xam ne du am dara di ko fi jar la ko woon mooy leeru sang bu tedd bi Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla fayal moom moo ni woon bañu ñu ma dañ ma xamul waaye xam naa ne ku ko gëstu rek di nga xam moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mooy kan yàlla na yàlla def mu nekk sunu muur incha macha allah macha allah maa ngi baax. sa man-man julli ci mbindeef mi la gën a xam yaa rasulallah jàmm tey xam ngeen ne fii ñu ñëwoon mooy xuntu mi xuntu mi nag mu nekk bërëb boo xamante ne bu doy waar lool lool lool damay def appel képp ku fi musul ñëw ñëwal te xam ne ngëneel la ngi fi moo taxoon tey bi ñu ñëwee ñu waxtaane ki nga xamante ne mooy Seydina Limaamu Laay ànd ak sëtam bi tabarkàlla macha allah mu disponible lool maam li baas wax ñu li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom moo xew fii si xuntu mi fi ñu toog nag moom mooy jàkka ji fi nga xamante ne fi la ñuy jullee bu waxtu yu jotee fekk fi ñi ñi ñu ñuy jugg fi barkeelu lañu fas ne tëj itam suñu émission tey barkeelu googu moo waral ñu ñëw woon ci dëkk bu tedd bii di Ngor ci biir Almadi place bii nga xamante ni moom lañuy wax xunt mi te leeru sang bi defoon fi junni at macha allahu taala moom la ñu nekk nii tey di ci ñaan yàlla dëkk bi li ñu gën a soxla mu di jàmm yàlla gën ko fi def waaye li ñu gën a soxla pour mu gunge jàmm ji muy naataange yàlla na yàlla naatal réew mi bu baax a baax a baax waaye bu ñu ko naatalalee yàlla nañu yàlla wër sëggale ñu nekk ay jullit yoo xam topp suñu diine ni nga xamee ni noonu la yàlla bëggoon ñu toppe noonu suñu diine rawatina yeneen tey ñëw ci kaw suuf yàlla yónni leen pour doomu damay man di delluwaat ci seen bopp ci seen borom eh, ba tey ci weer wu tedd wi nga xam ne gis nga ni jullit ñëpp ku ci ne bés boo xëy rek yaa ngi daw uti ji lu la may yiw di daw di uti ji lu la nangul sa koor di daw di uti ji lu la barkeelal sa jaamu yàlla macha allahu taala loolu kontaante bu yaatoo yaatoo yaatu la eh, ba ñu mën a agsi fii nag mën ko fee defee nga xamante ni tey àddina bi toll na foo xamante ni ñaan rek la àddina bi soxla waaw ndax euh, day gën a metti ndax yonent bi daan wax ni xayrul xuruuni qarni moom sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni génération yi gënoon ci ay génération mooy génération yi àndoon ak moom te fekk ko kon suñu demee tey ba jamono di gën di naqari moom sang bi seydinaa limaamu alayhi salaatu wasalaam bokkoon na ci ay dénkaaneem ak ay taxawam ne woon na di ngeen dem ba jamono xam leen di jamono yëngatu na caxasoo na moom seydinaa limaamu wax yii yi ma mujjee wax en 1909 la di wax ci biir xutbaam yi ni maa ngi leen di xamal ne jamono yëngatu na jaxasoo na waaw inna zamaane ittara ba wax talata mag ñi ko doon bindee ni wa dalika fanaaw ne woon na leen jamono dina yëngatu dina jaxasoo mais nag gis ngeen ni tey waxuma jamono mais àddina bi ci boppam mooy yëngatu addina moo jaxasoo jaxasoo àddina nag du ay xeex du dara mais tey nit ñi amatuñu conscience même di jaamu sax seen borom tey dañu dem ba gis ne àddina bi ñi ñëpp li ñu li ñu yitteel mooy yàlla yitteelatuñu mais ku ci nekk tey nan laay def ba oomle moo la gën a yitteel dem nañu ba mbaax yitteeluñu moo tax tey kenn sàkkootul mbaax dem nañu ba nit ñi yàlla ñoratu leen mais leneen muy àddina moo leen gën a ñor moom sanga bi mu ne woon àddina yëngatu na jaxasoo na boo gisee àddina bi ñëpp di rayante ay conflit d'intérêt rek moo fi am moo taal àddina bi moo taal dëkk yi moo taal guerre yi moo taal yëpp àddina boobu nag mu ne yëngatu na jaxasoo na la mu ca jublu nee na wa zalika fanaaw loolu dafay wane rek àddina mu ngi bëgg a jeex ginnaaw àddina bi mu ngi bëgg a jeex nag. ñu toll ci période yoo xamante ni période weeru koor la nit ñi war cee defaruwaat delluwaat jàngaat après apprentissage bu ragal yàlla moom moo tax yàlla indil ñu weeru tedd wi. moom sang bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam daan wax saxaaba yi tout le temps ci bu weer yu masee teru. góor góorgóorlu leen di bëri lu ngeen di tudd yàlla lu bëree bëri ci weeru koor bi góorgóorlu leen def ay istixfaar ci weeru koor bi góorgóorlu leen di def ay salaatu ala nabi ci weeru koor bi góorgóorlu leen di saraxe ak di def mboolem yu baax yi nga xamante ni moom la yàlla dogal ab jullit war koo màng ci weeru koor wi kon ñu ngi sàkku ci jullit ñi ñëpp lu ñu mën gën a daw uti ci sunu borom promotion bii mënu jox ñu daw profité ci pour mën a am yiw bi yëpp yàlla nañu yàlla bañ a nattoo ci ñu yonent bi wax ne ruba saimin sa fi sawmihi illa juun wal atas moom sang bi sayyidina Lion waxoon na ko ci yoon démbam ni bëri yaa na ko woor ba ngoon jot te amul ci kooram lu dul xiif ak mar tabaarakallaahu yàlla nañu ci yàlla muccal yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dinañ dab yërmande yàlla ji am ko ci dab njéggalu yàlla gi am ko ci ba pare may ñu ñu mucc ci sawara ba pare defal nu nag leetu xadri gi di dajeel di ñëpp di wër mu yàlla nañu yàlla tombale ak loolu macha allahu taala def ci àddina bi jàmm macha allahu taala sana day jërëjëf ñu ngi delluwaat di ñaanal sunu kilifa yi diine yi tàmbale ko ci Seydina Mouhamadul Mokhtar yàlla sàmbal na ko bu baax baax baax baax yàggal ko ci kanamu jullit ñëpp defal ko jàmm defal ko tawféex defal ko xéewal yu bare bare bare bare ñaanal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla taxawu ko bu baax baax baax. naa li ñu am pour liggéeyal ko yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla àggali leen naal yooyu ñaanal ko suñu kilifa bu baax suñu gi suñu Babacar si Mouhamadul Mansour yàlla sàmm ko bu baax te sàmmal nu leen aaral nu leen naal yi mu am yëpp suñu borom ba àggalil ko ko ñaanal ko bu baax sëñ Muniru Njegen ku maam Alaaji yàlla sàmmal nu ko bu baax taxawul nu ko lu bare bare bare bare ñaanal ko bu baax Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh maam Ibrahima Niass yàlla sàmm ko naal yi mu am yëpp sunu borom àggalil ko naal yi àggalil ko nag mboolem ñi nga xam ne ñoo ne Ceneba ak Jaamal ak euh, ñëpp yàlla sàmmal leen këru diine yi ñëpp yàlla nu leen waaye bu ñu leen sàmmalee ba pare yàlla nañu may nun taalibe yi ñu am yu dégg ak topp. voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen tey suñu émission ëttu diine yi si biir weeru koor yi nga xam ne dañu foo yéene ànd ak yéen fépp foo xamante ne këru diine la rek ñu fa yéene fa dem ànd ak ñoom tey nag ñëwoon fii nga xamante ne moom mooy Ngor Almadi di diw di xuntu mi nga xamante ne nii béréb bu kéemaane la ñu doon waxtaane Seydina Limam ñu ñëw nag ànd ak sëtam mam baas mu ànd ak ñun waxtaan ak ñun kan mooy Seydina Limaamu waaye wan ñu bërëb yi nga xamante ne bérébu ñaanukaay la bérébu kéemaan la yépp yoo xamante ne nekk na fii ci xunt bi mu nekk loo xamante lu am appel rek képp ku fi ñëwagul am nga chance yu ñëw fi si weeru kedd weeru tedd yu ñu nekk nga ñëw ziar si ndax boo ñëwee di nga xam ne leer ak ngëneel kese moom moo fiy xeeñ tabarkàlla macha allah dama leen jox rendez-vous incha allah très prochainement comme ni ñu koy defee si weeru koor bi yëpp fépp kër diine nekk rek nañ fa dem ànd ak yéen si émission bi muy ëttu kër diine yi ñu fas yéene ko ànd ak yéen si biir 7TV télé bi ñu nuru ba noppi li ñu dajale jërë ngeen yoon ñu ak beneen këru diine si biir koor gi ak 7TV